الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبه أهل السعادة منا من الخفلة والجعل والإسيان وأخراهم بطلب الإقوام والمرضى الغفران والسلام أبدا على من أنقصنا من الخسران والإرمان حتى سرق بنا محيا حال يدخلنا الجن ala alihi wa sahbihi firsaan wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi diin min islam yaan amaa baad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi yëkkati nuyoo bu ànd ak ñaan ak siyaara jëme ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mi nga xaye moo toog te ci buñu ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mu di ko ñaanal fan wu gudd wàll bu wér naal yi mu naal liggéeyal maamam ci tool bi di diine di siyaare sëriñ am di Modou Mbène xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal li mu ñaanal sëriñam di siyaare sëriñ Abdou Lahad Cissé xalifa sëriñ Mor Mbaye Cissé di ko ñaanal li mu ñaanal ay kilifaam di siyaare nag ko ñaanal muy jàmm ak mucc ak booleem di boppam sëriñ Assane asalaam lépp di siyaari sëriñ Adama mi nga xam ne taxawaayam sëriñ Adama mi nga ko sëriñ Adama mi ngi ngeen ñaanal suñu borom yokk sa wér ak saw fan mu sëdd ci ndog ci saahir ak ci baati man de ku ci sa jëw laa ngir sa taxawaay bu rëy bu rafet bi nga xam ne taxaw boo ko ci sëñ ñu tedd bu baax bii di sëñ Assane Salam sëñ Assane nag ni ko sëñ Mor waxee xaritam ba wëllëreem ba sëñ Mor bay siise da ñëw fa moom day ñëw ca daara ja toog fa sëñ Mor di waxtaan ak sëñ Mor te loola détail yàlla dogal ma fekk ca yu bari jataay yooyu ñu fekkee ca ay jataay yu bari kon am na lu ca a seede ci yu gàtt rek sëñ Assane nag dañuy dellu rek ca la ab duwóor doon waxoon kalaamu law li ay lastu af xamu li ànd nii ana ana waxum umoo waxe wël yi moom ak ay jëfam nit ordinaire rek ñu ko ta xam ndax nit dafa leen sakkaane koo xay xeejam suñ borom la sëñ Asan na xeejam suñ borom la woon boo xaye suñ borom daana ko xamal loo xaye du ko xamal keneen di ko wane loo xaye daawu ko woon keneen te loolu yaakaar naa ne moo dem ku ñëw fii loolu seere nga ko ci sëñ Asan ku ne xam na ne ku daan dimbale ñun kaw la ak ñooñ suuf buñ ne ñooñ kaw mooy ñuy dund buñ ne ñun suuf mooy ñu nekk ci biir bàmmeel yi kooku nag xëy jëf suñu borom la ndax ka ne àllaaxira nga jàkkaarloog moom gis ko mu nekk ci aw tiis nga xam amu turam xam ak njabootam dem ba fa ñoom wax leen ñu sàkkal ko sarax nangam ak nangam ak nangam ñu def ko mu delluwaat ci jàmm loolu koo xam ne suñu borom wan na la ko ba noppi nga def ko muy sa liggéey nag kooku kon ku ne xam na ne xeeñab suñ boroom la kon sëñ asan ku ne xam na ne xeeñab suñu borom la ndax suñu borom daana ko won waa àllaaxira di ko ca won lu bari mu xet li ca ñu bare bare bare bare ko xet li waa addina waa àllaaxira nag xet li nga waa addina ndax nit bu ñu xet lee way juram ca àllaaxira wala ñu xet li ab sëriñam wala ndeyam wala baayam wala ab xaritam kon mel na ne moom it xet li nañ ko kon kooku dama ku neex a xam parce am ku ñëw fu sëñ Mor ndax di nga dafay yàgg di ngeen moom ku jox si dugg rek am ñu jóg di la di ngeen di ngeen moom fi lay yàgg te du fi jóg mukk moom ba Idaay Umar si fi ko fekk fi koy bàyyi. Euh, Seydina Omar yeb yeble woon na ab xare Seydina Omar amirul moominiin yeble woon na ab xare xare ba dem ñuy xeex. xeex ba yàlla dogal yéefar ya nar a gàññee jullit bi ndax yéefar yi dañoo wër aw doj ci doju tund yooyu te buñ ko wëree dañuy tas jullit ya daal di leen di faagaagal gañe leen yàlla dogal mu dajee bisu ajjuma Seydina Omar boobu mooy amirul mu'minin mu jiite ci bi mu jiitee jullit ajjuma bi ci biir xutba bi ni mu taxaw te xutba nii rek mu jàkkaarloog saariya يعني سيدنا عمر نكو أساري الجبل أساري الجبل أساري الجبل ساري وجل مجمع بمين يتيون لولي وامك المدينة دنيا أه من جاهلنا سيدنا عمر نابك يوك لفي الله لفي يونان بدون وقت صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بكر xutba bi day dolli na ci assyrian jabal te ñun loolu mosuñu koo dégg ci yonent bi mosuñu koo dégg ci Seydina Ababacar ba mujj nag am ñu sës ci moom dem ca moom xamal ko ne ko bàyyee nga nit ñi coow ndax assyrian jabal ji nga wax tax na nit ñi jaaxle nañu ba am na ñuy wax naan ndax dangaa bëgg a yokk li fi yonent bi bàyyi woon ak Seydina Ababacar Seydina Omar daal di woote ni bés sàngam ne ñëpp fekk si ma ci pénc mi dama leen a soxla ñun de sawar lool waxtu boobu muy jot pénc ba fees na si naa man bis boobu la seer di ñibbi si ak bi bi seer di agsi rek yaram bi sina Baba Seydina Omar daf ko ne ax bi moom bala ngaa wax dara rek xibaar la saw yoon mu joxar bi Seydina Omarul Xattaab ne ko yaa di amirul mominin ndax dogal ko rajo du ñibbi si ndax ajjuma dañ weesu ci bis sàngam ajjuma joojee بس ما لي جو يا من اساري الجبل ساري وجل دجوا سو كو هوتون يفر اي داني غاني تاسنو واي بما كو خير لا نوي بتي مو مو دال دي لين دي غاني تاس لين فا خير اك نيوم مان لين با تاي ني بيس دوران كو نيو دوم ني بيس كون يا مان امير المؤمنين سينا عمر دال دي جاسو سينا عمر جاسو مورو من لين كون كي لا غيسون بابا لوبو موم لا دون واخال كون ديغت موم في ما am na ku ma si ñëw fi sëñ Mor di diingat Serigne Assane Salaam naan moom muy woote ak ak wendi di woote lii di woote lii te xam ne du lenn lu dul ab wuute la lii ci laala laala laala sëñ Mor de ko yow day ko desee xam yàlla ndax yow xamoo yàlla yow mu ne ko ah, ne ko yow xamoo yàlla yow fa yàlla ne ak foofu ma waxee bokkuñu yow de soo demoon ca marché ba fi ne ca dëkk ba marché Ndiarème bii soo fa demoon àgg fi barab tekki sa tubay di saw ne da ngay tuur ndox. am alkaati dina la eh góor gi nga geesu mu ne foofu bu saw da ngay si tubay seeti foo sawe waaye doo seet na alkaati bi lii la wala leer yow xamoo yàlla fa mu nekk kon eh, sëñ Assane noonu la meloon ci digganteem ak sëñ Mor Mbaye Cissé sama sang di fa ñëw saa su nekk am na ay ay ay ay waxay boppam yoo moo ko doon way njabootum jii jox naa leen ko mi ñoom eh, sëñ Adama jox naa ko day ñëw toog di wax sëñ Mor Mbaye Cissé yor xalimaam di bind ba mu àgg jox naa ko suñu aadama ñii kon fekk nañ ci ay jotaay yu dul benn du ñaare kon nag gannaaw bis bi moom day bis boo xam ne a ko bokk te it suñu asan day suñu asanam ñëpp ci saa yi ñu ñëpp ci jubaati kon bisam wax dëgg yàlla mënuñu fee ñàkk bañ a teew ñëwoon nañ fi ci bëccëg waaye dañoo dellusiwaat ndax bisam sunu bisam xamee wuñ ko ak bisu suñu borom bay Cissé nga xaye mooy suñu buntu ci Serigne Touba xaadimu rasuul sallallahu alayhi wa sallam yaakaar jàmm ndax kenn la ñu woon tey